asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ngeen dal ak jàmm ci xibaar yi digg bëccëg yi bàyyeekoo QTV ak Q radio bëccëgub tey bi ngeen di si ànd Xadijatu ko li ñu seeti boppu xibaar yi. banqaas bu ñu naan West African Examination Council mu doon ab council bi bàyyi xel aju naka ci examen yi ba ñëwee naka ci tund nekk ci biir Afrique sow jant ñu ngi leen a xamee si waaye ñoom naka génnee nañu result sub xale yu toll si fukkeelu bug bi ak ñaar ginnaaw bi ñu defee woon seen examen bi ñu wane ne naka ñu paasoon maanaam ñu jàlloon ci at bu passé moo ëpp naka ñu jàll ci at bii nii. mbëkk néegum jiitub réew mi mi wuyoo ci Badara Alieu Diouf moom naka dàqalu na ne fitna naka mooy mun a saafaral fitna kàddu gi nag mu ngi ko gaaral si ndajewub ECOWAS comité bu ñu nekk di am si jamono ji mu wax ne naka li mën a saafaral fitna muy naka ñu indi jàmm dooleel jàmm naka ci tund yi nekk ci biir Afrique driver yi ak ñuy jëfandikoo yoon bu nekkee saf diggante faaraato ak jàmbur si jamono ji nag ñu ngi wane seen mbégte ak seen kontaan te ginnaaw yoon woowu ñu ngi koy defaraat te defaraat gi nag léegi tey mu pare yoon wi nag ñu ne mu ngi toll nag si juróom tomb juróom benn kilomètre te nag moo jokkalante Brikama Serekunda highway bi ak Sukuta Jambanjelly highway bi. mbokk yi xibaar yi lañ fas yéene yaatal ci bëccëgub tey bi ngeen tàqel bu ñu dellu see rek ñu xuus ci biir xibaar yi. West Africa Examination Council bi ñu gën leen a xamee si waaye ñoom naka génnee nañ ab bataaxal di wane naka resol sup xale yoo xam ne naka ñoo jote dar keppal seen examen bi te ñu nekkoon naka si fukkeelu bug bi ak ñaar ñu wane naka ndaw yoo xam ne ñoo jàlloon ci at bu ñu passé ñoo ëpp naka ñu jàll ci at bi ndax naka si atub ren bi ci téeméer bi daanaka ñett rek ñoo jàll te ñoom naka ci pass mark yu ñu am am nañ naka juróomi crédit ak lu ko ëpp. te bokk na si naka subject yi ci mel ni mathématiques ak anglais ñu ne tamit ci téeméer bi naka li war a toll si ñett fan weer ak ñeent doon nañ ay candidate yoo xam ne naka si jamono ji amuñu benn crédit amuñu tamit benn paas QTV naka ci waxtaan goo xam ne am nañ ko permanent secretary bi si jawrin bu ñu dénk wàllub njàngub digg bi ak njàngub kaw gi muy wuyoo ci Louis Moses Mendy moom naka xamal nañu ne waaye ak resource bi naka ci atub ren gi baaxul benn yoon mu continuer di wane naka resource waaye bi génn na naka di wane candidate yu def exam bi ak itamit ñi nga xam ne naka ñoo pass exam bi bu ñu sukkandikoo ci bataaxal boo xam ne naka mu ngi bàyyeekoo si West African Examination Council bi muy waaye ka mu ngi wane ne li war a toll si fukki junne ak juróom téeméer ak juróom-benn fukk ci ay ndaw ñoom ñoo registré wu bindu naka ci li nga xam ne mooy examen bi waaye naka ci téeméer bi juróom doon na ñoo xam ne naka ñoom defoon nañ ci at bu ñu passé ñu bëggoon a defaat naka ci atub ren bi mu konte di wax ne naka nit ñoo xam ne ñooy candidats yi maanaam ñu bindu pour def naka li nga xam ne mooy examen bi ñu ci bari naka am nañ five credit te naka am nañ maths ak english mu continuer di wax ne tamit number of candidates yi maanaam ñi nga xam ne naka ñoo bindu pour def examen bi a ak juróom doon nañ ay nit yoo xam ne naka ñoom ñoo jàll ci at bu ñu passé naka juróom-ñeenti fan weer ak ñeent ñoo doon nañ ay nit ñoo xam ne naka ñoo ko jàll ba tey tamit mu continuer di wax ne luy war a toll naka si fan weer ak juróom-benn school ñoom ñoo bind pour seen ndaw yi naka def examen bi mu ne si jamono ji ka results boobu ñeenti ci buntu jàngeekaay yooyu naka seenum ndaw yi ñoo jàll Louis Moses Mendy moom bi si ministre bu ñu dénk wàllum njàngum digg bi ak njàngum kaw gi moom wax ne bu ñu sukkandikoo naka ci waaye resource bi si jamono ji naka xale yu bëri naka ñu ngi dellu ginnaaw jëmale ko naka ci mbirum njàng mi surtout ma naka bu ñëwee si mas ak english mu ne atum ren bi naka xale yu góor ak jigéen ñoo xam ne naka ñoo bokk ci examen bi li war a toll naka si téeméer fukk ak juróom-benn ci ay xale yu góor ñoo doon ñoo xam ne naka ñoo jàll examen bi ñaar téeméer juróom-ñett fukk ak juróom-ñeent doon nañu ay xale yu jigéen naka ñoo xam ne ñoom ñoo jàll examen bi te ñii naka am nañ juróomi crédit. ak lu ko ëpp mu bokk ci naka subject bu ñu naan maths ak english bu ñu sukkandikoo ci permanent secretary bi mu ne ci at yi ñu nekk mbiru jàng gi naka ëmpale bu ñu ne mu ngi am naka ab jafe-jafe tax na naka waaye ak resource bi si jamono ji naka nekkul di baax ndax xale yi naka nekkul di pass seen examen bi mu ne naka lu ko waral mbir yu bari la mu ne waaye naka moom si jamono ji lu ñu bugg rek mooy pour ñoom naka ñu jël matuwaay gi pour gis naka saafaraal nañ lii doole naka mbirum njàng mi ngir xale naka mun a fundal seenum njàng mu continuer di wax ne naka mbirum njàng mi wala sax jëwrinum njàng mi bu ñëwee naka ci biir réewu Gambie bi doon nañ bànqaas yoo xam ne naka ñu ngi continuer di jànkuwanteel ay jafe-jafe ko naka si seen wàllub liggéey bi mu ne bokk na ci naka ay jumtuwaay yu baax yoo xam ne naka amuñu ko pour jëfandikoo ko ci biir réewu Gambie bi bu ñu sukkandekoo ci results yu génn di wane xale yi naka seenub exemple bi nu mu demee tax na naka si jamono ji ñu bari di ngawti ngawti ne nguur gi naka dañu war a gën a dooleel mbirum njàng mi gën ko fullaal tamit naka jiital ko ci mbir yoo xam ne naka ñu ngi koo dooleel ci biir réewu Gambie bi te lii naka lu ko mën a dëgëral mooy ñi nga xam ne naka ñooy waajuri nguur gi ak it ñi nga xam ne naka ñooy jàngalekat yi ñoom ñëpp naka ñu lëkkaloo dooleel naka xale yi taxawu leen naka ci seen mbirum njàng mi tamit naka xamal leen njëriñ gum leen di indi naka ci seen wàllu dund gi vice président bi di wuyoo ci Badara Alieu Diouf moom nag ci kàddu gu mu si ndaje goo xam ne nag kilifa yu bokk ci mbootaay yu ECOWAS bi ñu ngi ko nekk di def moom nag wax na ne fitna nag munta saafaral fitna fitna nag ci nuñ koy mën a saafarale mooy ñu dooleel jàmm tamit nag isi benn waxtaan seet nag sarta yu ñoo mën a tëral pour gis na nag dooleel nañ jàmm tamit indi jubale ci diggante ñi nga xam ne nag ñoo nekk di am fitna kàddu gi nag mu ngi ko jëmale ci tund yi nekk ci biir réewu Afrique bi ñu bokk nag ci mbootaay yëpp ECOWAS bi te si jamono jii seen réew yi naka mu ngi am fitna ECOWAS parliamentariens yi naka si jamono jii ñu ngi am naka am ndaje sa Banjul matuwaay gi naka ñu jël ko pour gis ne waxtaanee nañ yurub jàmm ak itamit dëgëral kaaraange bi dëgëral lu aju si wàllu démocratie ak itamit wan nguur yi naka yoon wu jub goo xam ne boobu la ñoo jàll pour gis ne naka doole nañ seen réew yi tamit naka ñuy waxtaanee jafe-jafe goo xam ne naka dëkk yaa ngi koy jànkuwanteel ak itamit seen nuñ ko mën a saafarale ginaa doon gaaral kàddoom ci ndaje wu àllarba bi ki nga xam ne naka dafa teewlu ci ndaje bi ànd ak kilifa yu ko ci biir réewu Gambie bi miy bëkk ndéegum jiitu réew mi vice président Badara A Diouf moom naka wax na ne. tund yoo xam ne naka ñoo nekk ci biir Afrique si jamono ji naka ñu ci bari ñu ngi jànkuwanteel jafe-jafe ci seen wàllub dund maanaam seenum nit ñi naka ñu ngi am jafe-jafe mu ne waaye naka lu ñu war a def rek mooy ñu tëral ay sa taxool naka nu ñoo doolelee wàllub koom-koom gi ak i tamit doole naka mbirub dëkkuwaay gi ak mbirub tund gi mu ne lii naka si nuñ ko mën a defee mooy ñu lëkkaloo doole suñu bopp sànniwante loxo mu ne indi naka ay mbir yoo xam ne naka mooy njëriñ réew yu nekk ci biir Afrique vice président bi Badara ba tey rek mu continuer di wax ni si jamono ji naka ñoom dañu war a lëkkaloo pour gis ne dooleel nañ démocratie yee nañ askan wi naka ci mbirub démocratie ak itamit niñ koy doolale ci biir réewu Gambie bi indi naka mbir yoo xam ne mooy isi yokkute wàññi naka ñàkk gi tamit yee askan wi naka ci mbir yoo xam ne moo aju ci wàllu fitna jàngat leen yokku leen xam-xam ci mbir yoo xam ne naka mooy mën a saafaral yooyu le fitna wala sax nuñ ko moytoo mu continué di wax ne naka si jamono ji fitna naka munta saafaral fitna dañu war a jël naka yeneen sarta jël naka yeneen i doxalin xool naka nuñ koy mën a saafaralee mu ne tasi nuñ koy mën a defee naka mooy ñu waxtaan dajale naka ñi nga xam ne ñoo nekk di am fitna gi waxtaan naka seenu mbir xool naka ni ñoo mën a indee jàmm ak itamit nuñ leen di mën a jubalee mu ne tamit dañu war a am naka ay sata yoo xam ne dañ koy fësal sata yu ñoo jëfandikoo sata yoo xam ne naka yooyu la mën a liggéeyee pour indi naka ab wéccite ci nit ñoo xam ne ñoo nekk di yeewoo ci tund gi ba tey tamit mu continuer di wax na naka dañu war a bàyyi xel ndaw ñi ndaw yoo xam ne naka nekk di yeewoo ci tund yi nekk ci biir ñoo xam ne nag ñu yee yeewoo ci dëkk yu bokk ci mbootaayu ECOWAS bi mu ne ndax nag fitna yu bari ndaw yi la ñoo jiital mbir yu bari yi xew naka ndaw yi la ñoo jiital kon naka ndaw ñi la ñu war a téye naka ñu jiital leen ci mbir yu dooleel jàmm mu ne mu ngi fàttali kilifa yu nekk ci ndaje bi ne determination mi maanaam dëggu bennoo ak i tamit wécc wante xalaat sànni wante loxo dooleel sax tey ñoo tëral li kay mën a indi wéccite te bëgg na naka wéccite googu am naka ci juróom juróomi at yu Adja Satou Camara Pinto moom naka mu doon fourth deputy speaker bi si ECOWAS parliament bi ak honorable Edwin Snow Junior ak ki nga xam ne naka mooy honorable moom mu doon naka chairman si ECOWAS committee bi ci banqaas bi xool naka doxalinu politique bi mbirub jàmm mbirub kaaraange bi mbirub tundub Afrique bi ak itamit di gestu sarta yoo xam ne naka ñu ngi ko tëral jëmale ko ci àq ak yelleefu doomi aadama ak itamit li nga xam ne naka mooy mbirub jigéen ñi ñi ñoom naka jaajëfal nañ vice président bi ci kàddu goo xam ne naka gaaral na ko mu doon naka kàddu goo xam ne kàddu gu dëggu la tamit mbir la goo xam ne naka buñ ko defee dinañ si gis naka njëriñ ci ndaje bi kilifa yi kenn ku ci nekk naka gaaral na kàddoom yëkkati naka waxtaan goo xam ne dina jëriñ naka askan wi nekk di yeewa ci tund yu nekk ci biir Afrique te ñu bokk naka ci mbootaayu ECOWAS bi tamit waxtaanee nañ tamit mbir yoo xam ne naka mooy mën a indi jub dooleel naka mbirub politique bi dooleel naka mbirub luwaa gi mbirub kaaraange bi dàqalu naka lu aju ci wàllum njuñ jaaj tamit naka tëral ay satta satta yoo xam ne naka moobu la ñoo jëfandikoo pour gis naka saafaraan lañ fitna yoo xam ne naka mu ngi ci tundi te muy sababoo naka ci wàllu politique bi driver yi ak it ñi nga xam ne naka ñooy jëfandikoo yoon wu nekk safaaraatu jàmbur ñoom naka si jamono ji ñu ngi wane mbégte ak kontaante ginnaaw yoon woo xam ne naka ñu ngi loon koo defaraatal mu ngi waaj a pare te naka ñu ne mbir la goo xam ne naka na leen wàññil jafe-jafe goo xam ne naka boobu lañ nekk di jànkuwanteel ci wàllu dem dikk bi yoon wi naka ñu ne mu ngi toll si juróom tomb juróom benn kilomètre te naka yoon wi moo jokkalante yoon wi nekk Sabrikama Serekunda ak Sukuta Jambanjeli yoon woowu nag tegu xeer bi ñu ngi ko defoon naka ci weeru april si atum 2021 mooy ci at bu ñu passé te naka kilifa yi dañ jëloon matuwaay bi rek pour gis ne yoon wi naka pare nañ ko si juuru fukki weer ak ñaar mi maanaam si benn at ñi nga xam ne naka ñooy nekk di yeewoo te diwaan googu ñoom ci waxtaan gu ñu am ak QTV ñu ne projet bi naka nguur gi moo ko nekk di doole te naka ñu ngi ci wone seen mbégte ak seen kontante ndax naka yoon wi dina leen jàppale jafe goo xam ne naka boobu lañ nekk di jànkuwante ci wàllu dem ak dikk tamit naka na leen jàppale ci nawet gi ndax ñoom naka nañ dee am jafe-jafe trop pour génn seenu diwaan googu bu fekkee ne naka dugg nañ ci nawet Lamine Cissé moom mu doon ab taxi driver di jëfandikoo yoon wa doon gaaral kàddu mu ne moom naka mu ngi jaajëfal nguurub Gambie bi ci matuwaay goo xam ne naka jël nañ ko pour indi seenu projet bi sa foofu defaraatal leen naka yoon woowu ba tey tamit mu continué di wax ne liggéey bi naka si jamono jii mu ngi gaaw wax dëgg neex yàlla te ñoom naka ñu ngi cee wane seen mbégte mu ne ñoom driver yi naka si jamono jii lu ñu bugg rek mooy yoon wi gaaw a pare ndax naka yoon woowu lañ dee jëfandikoo luñ fay am naka ci lañ dee dundalee seenum njaboot gi bu fekkee ne baax na gis ne sax suñ moto yi dina yàgg suñ loxo du gaaw a yàqu mu ne nguur gi naka dañ war a gaawlantu pare yoon wi ndax man naka yàkkamti naa ko Wiyé Sagnang moom min mu doon naka ab taxi driver ginnaaw doon gaaral kàddoom wax na ne naka yoon wi si jamono ji naka bu paree dinañu njëriñ torop ci suñu wàllum njula gi tamit naka yoon wi bu paree dina neex a daw tamit naka di nga gis nañu driver yi dinañ mun di jël naka jumtuwaay di ko yóbbu naka place ba place ba tey tamit mu continue di wax ne si jamono ji ñun naka dinañ mën a wàññi paas bi ndax su boobaa yoon wi naka dina neex a daw mu ne yeneen saa naka boo ñu jëlee town trip pour dugg si jàmbur dañ laa caaj naka ñetti téeméer nga fay ko mu ne lu ko waral naka mooy yoon bu baaxul mu ne yoon wi naka ndax naka place yu si bari dañ am naka ay paxte boo fay daw sa moto bi naka mun naa yàqu tamit naka dang di am jafe-jafe pour dugg naka ca diwaanu jàmbur bi mu ne surtout ma naka ci nawet gi nga xam ne yoon wi dañoo gën a bon ndax naka dox mi daf leen dee dog wala sax mu gën a xóotal pax yi mu ne looloo tax naka ñu yokk paas bi ndax naka suñu moto bi su yàqoo tendala si naka mun mënu koo defar Binta Diop moom muy jëfandikoo yoon wi doon naka koo xam ne dafa yëngu ci wàllu dem ak dikk bi ginnaaw doon gaaral kàddo moom it wane na mbégteem ak kontaanteem ci projet bi mu ne mu ngi jaajëfal naka nguurub Gambie bi ba tey tamit mu continué di wax ne naka projet bi su paree dina dooleel wàllu koom-koom tamit naka dina indi ab yokkute ci dëkkuwaay googu ba tey tamit mu continué wax ne naka driver yi si jamono ji ñu ngi yokk seen paas bi ndax naka ñu ne yoon wi baaxul waaye naka yon wi su baaxee loolu naka dina wàññeeku mu ne boo bàyyee xel naka yoon wi léegi daf la la jël naka diir bu yàgg pour nga yegg naka si biir jàmbur dafa mel ni sax koo xam ne mu ngee dem bassin mu ne te diggante bi soriwul mu ne lu ko waral mooy yoon wu bon bi mu ne waaye naka su pare nañu indil ab yokkute mu ne ñu ngi ñaax nguur gi pour ñu gaawlantu seen liggéey bi ndax naka si jamono ji ñun sonn nañ torop surtout ma naka ci nawet gi Ndeye Ndiaye moom it muy jëfandikoo yoon wi ginnaaw doon gaaral kàddoom wax na ne naka parewul tali bi doon na mbir boo xam ne naka moom gént la gu nekk dëgg mu ne naka nguur gi dañu war naka di gaawlante façon projet yu mel nii di indi wéccite naka ci dundub askan wi wàññi naka jafe-jafe koo xam ne ñu ngi ko jànkuwanteel ci wàllu dem ak dikk bi mu ne tamit nguur gi dañu war di gestu mbir yoo xam ne naka nit ñaa ko soxla ñu bari ñoo xam ne naka ñu ngi yeewoo sa kom Kombo South bokk ci naka ñi nga xam ne ñoo nekk sa faaraatu ak jàmbur ñoom naka ñu ngay jooytu ñàkk yoon yu baax suma naka bu ñu duggee ci nawet gi waaye naka yoon wi am nañ yaakaar ne bu pare dina doole naka mbirub koom-koom gi dina yombal naka jafe-jafe gu askan wi di jooytu ci wàllum dem ak dikk bi tamit naka na leen jàppale pour naka ñuy mën a yegg ci lopitaan yi gaawlantu tamit naka na leen jàppale pour naka ñuy mën a yegg si school si di yegg si seen marché yi wala sax si seen tool yi du ñu am benn jafe-jafe ndax naka yoon woowu mu ngi jokkalante yeneen yoon yoo xam ne naka dañ koy bëggati jëfandikoo pour yegg naka ci place yi ma tudd banxaas bu ñu naan National Nutrition Agency ñu doon banxaas buy doole naka wàllu dund gi ñoom ñoo lëkkaloo ak GCCI seenu banxaasub jigéen ñi matuwaay bi naka ñu jël ko rek pour gis ne yokk nañ xam ay jigéen jàngal leen naka mbir yoo xam ne yu la ñu mën a jëfandikoo pour defar naka ay lekki xale matuwaay gi ñu jël ko rek pour gis ne doole nañ jigéen ñi ci wàllum njula gi tamit naka ñu mën a am naka fu ñu ngëbandu ngir mën a dundal naka seen njaboot gi ndaje gi naka ñu ngi ko amee si naana conference center bu nekk sa kan nefin te naka yokk xam-xam gi National Nutrition Agency muy naana ñoom ñoo ci lëkkaloo ak Gambia Women's Chamber of Commerce ak seen yeneen àndandoo yi jigéen yi nag ñu ngi leen di jàngal ñoo mën a jëfandikoo dund goo xam ne nag ñu ngi koo bay ci biir réew mi defar ko nag ci anam goo xam ne xale yi nag nañ ko mun di lekk muy ay ogi ay ruy ak itamit yeneen i lekk yoo xam ne da nga koy mun naka di jox sa xale bi mu baax si moom torop jox ko naka wérgu yaram ak itamit cawarte matuwaay bi naka ñu jël ko pour gis ne jàppale nañ yaay yi ngir ñu mun a dajale naka seenu xaalis gi wala sax def ko business ngir ñu mun a dolli seenu bopp ak itamit seenu njaboot gi matuwaay gi tamit jël nañ ko rek pour jàppale jigéen ñoo xam ne naka ay ñëw di doole leen ngir naka bu fekkee ne amuñ soowi ween koo xam ne naka dañoo mën a nampal seenub doom yi mën nañ naka di defar lekk gii di ko jox naka seenub doom yi ba tey tamit mbootaay gi naka ñoom seenub taxawaay bi lu mu doon mooy pour isi naka ab wéccite ci seen wàllub liggéey bi ba tey tamit mbootaay bi naka benn tànk koo xam ne naka jël nañ ko mooy isi wéccite ci dundum jigéen yu nekk di nampal wala jigéen yoo xam ne naka dañu am njaboot tamit ñu ne matuwaay gi naka dañ ko jël rek pour gis ne wàññi nañ naka dund goo xam ne dafay bàyyi ko sa bitim réew ñu koy jox naka suñu xale yi yu ci bari naka ñuy mën di ko defaraatal suñu bopp ci biir réew mi wàññi naka xaalis goo xam ne boobu la ñoo jëfandikoo pour jënd dund ak i tamit defar naka lekk yoo xam ne dafay dooleel suñu doom yi ndax ñun ñoo leen jur dinañ xam naka nuñ koy defaree pour mën a leen indil ab yokkute ci seen wàllu wér-gu-yaram gi te lii naka ci nuñ ko mën a doolelee mooy pour jàppale jigéen yoo xam ne naka ñoo nekk ci wàllub garden gi ak tamit jigéen yoo xam ne naka ñoo bëgg a yëngu ci wàllum njula gi te ñu nekk ci biir réew mi nda jege naka ñu ngi ko def si juróom ñetti fan te naka si jamono ji te si jamono ji naka jigéen yoo xam ne jot nañoo jaar si njàng njàng mi mën nañoo jëfandikoo mboq dugub buy ak tamit yeneen i dund yoo xam ne naka dañ ko de bay pour defaree ko ay ruy ogi ak it yeneen i lekk yoo xam ne naka xale yi dañ koy lekk Amat Ba moom mu doon executive director ci banxaasub naana bi ba mu doon gaaral kàddoom wane na mbégteem ak kontaanteem ci baaxaay ak itamit qualité bu lekk goo xam ne naka ñu ko won jigéen ñu nuñ koy defaree ngir ñu mun a dundal si naka seenub joboon mu ne naka mu ngi xamal jigéen ñi ne banxaasub naana gi dinañ continuer di leen dooleel ci mbir yu leen di indil ab wéccite ci seen wàllub dund tamit naka mbir yoo xam ne moo leen di dooleel dooleel seenum joboot ki mu ne moom naka ba mu ñëwee ba gis jigéen ñi nu ñu nekkee naka di package lekk gi mu daf si am kontaan kontaan mu ne si la laaj naka moromam gi mu ne ko ne gis nga ne lii njëriñ gu mu am ak tamit nuñ koy mën a defaree mu ne buy yoo xam ne naka ñu ngi koo bay ci biir réew mi ay bokk ak i dugub jaratu sañu koo jaay sa bitim réew mun nañ koo jaay fii defaraat ko tamit ci dund goo xam ne naka dinañu njëriñ njëriñ naka suñuy njaboot mu ne moom naka am na mbégte ak kontaan trop te si jamono ji naka mun na moo fugg dënnam ne ndimbal goo xam ne naka boobu la ñu nekk di jox mu ngi indi naka ab wéccite mu ne ndax naka ku taxawutu tànki taxawu naka ëllëgub réew mi ndax naka ñii ñooy doon magub ëllëg mu ne ñoom naka sa naana am nañu mbégte ak kontaan pour lëkkaloo ak seenub àndandoo yi jàppale naka jigéen ñi Beatrice Mbodj moom mu doon naka CEO ci banqaasu Gambia Women's Chamber of Commerce bi moom naka wax nañ njëriñ gu nekk naka ci lekk gi ak itamit njëriñ gu nekk ci defar gi ak it yokkute goo xam ne naka dina ko indil xale yi ci seen wàllum dundu mu continué di wax ne naka jigéen ñi si jamono ji dañu war a dugal naka seen loxo si façon jule gu mel ni di defar naka lekk xale yi di ko jaay naka ci biir réew mi mun nañ koo yóbbu si supermarket yi lëkkaloo ak ñu fa nekk ñu ko jaay naka ci biir réew mi mu ne naka bu leen xeeb naka lu ñu ñoo defar fii ndax naka lii lu baax la ci wérgu yaramu xaleñ tamit naka dina leen dooleel ci seen wàllu dund gi mu continué di wax ne naka façon business yu mel nii maa ngay ñaax jigéen ñi naka ñu dugal ci seen ta tasaare ko naka ci biir réewu Gambie bi mu ne maa ngay jaajëfal banqaasub GCCI bi ci ndimbal goo xam ne naka dooleel nañ ko ñun jigéen ñi pour gis naka continué nañ di isi naka ab yokkute ci wàllum dund gi ak ci wàllum jula gi Aïssatou Badji moom mu bàyyeekoo naka sa Kunkudiang Keteya ginnaaw doon gaaral kàddoom mu ne moom ak yeneen i moromi jigéenam naka jaar nañ si jàng gi mu ne moom naka mu ngi oo yeneen jigéen ñi pour ñu min naka ñu génn doole seen bopp naka ci mbir mi mu ne Gambie naka si jamono ji dañ si war a indi naka aw wéccite indi aw wéccite ci wàllu dund gi dooleel naka jigéen ñi jiital ci mbir yoo xam ne naka mooy isite wéccite googu mu continué di wax naka jigéen ñi dañu war a nangoo jiitu jigéen ñi naka dañu war a nangu tàng dugal naka seen loxo ci mbir yoo xam ne moo leen di doole doole seenum njaboot gi mu ne man mii ngay gis naka bépp bunt boo xam ne gis naa ko te ma si gis naka lu ma see njëriñ dinaa ci dugal suma loxo ndax toogaay amul mu ne naka mu nge wane mbégteem ak kontaanteem ci ñi nga xam ne naka ñoo leen dooleel ci projet bi foofa Fofana moom naka mu nekk di liggéey si Department of Food Technology Service nekk di liggéey naka ci ron ministre bu ñu dénk wàllu wérgu yaram bi moom naka wax na ne process goo xam ne naka def nañ ko muy yokk xam jigéen ñi ak i ko nekk di defaree naka mbir la goo xam ne moom mu ngi ci wane mbégteem ak kontaanteem mu ne lii naka balaa ñu doon commencé jigéen yu bari naka ñu ci amoon ñaari xel mu ne waaye naka bañ ci demee ba dugal ci seen loxo gis nag nuñ koy defaree ak i tamit boo xoolee nuñ koy defaree di nga xam ne defaree nañ ko ci set ak lekk gi sell na te xale gi naka mun na koo jëfandikoo mu indil ko yokkute ci wàllu dundam mu ne lu ci gën a am solo naka mooy ñu bàyyi xel li nga xam ne naka mooy hygiène bi muy maanaam set gi bàyyi xel naka ku koy jëfandikoo mu ne tamit dafa am solo naka pour saa yu nekk ñuy bàyyi xel naka nuñ koy defaree bàyyi xel naka tilim gi fexe naka pour gis ne fuñ koy defaree naka mu set ak i tamit fekk naka suñu loxoy mu set moo tax naka ñuy ñaax jigéen ñi pour ñuy faral naka di jëfandikoo glove ëmpalewuñ ne naka ñu bari nangutoo nañ ne lekk xale yi naka suñ ko defaree daf leen di indil ab yokkute ci seen wàllu dund gi wala sax ci seen wàllu wér-gu-yaram bi surtout ma bu fekkee ne naka yaayaa ko defaral seen bopp looloo tax naka si jamono ji mbootaay gi gisul lenn pour gis ne jiital na yaayi ci projet bii nii tamit naka ñu gis ne pour yaayi naka jiitu nañ ci mbir yoo xam ne naka mooy yombal seen wàllu dund ndax balaa ñu koy jëndee ji sa feneen ñu defaral ko naka seen bopp defaree ko ci anam goo xam ne naka dina baax tamit na qualité lii naka dina mun a aar xale ci lekk yoo xam ne naka ñu ngi leen koo jox te xamuñ ko tamit dina leen mun a jàppale naka ngir ñu am fan wu gudd ñetti fanum ndaje goo xam ne naka am nañ ko jigéen ñi pour yokk leen xam ci mbir yoo xam ne naka moo aju ci wàllu business bi mbir la goo xam ne naka ñu ngi ko fas yéene def pour gis ne indi a ab wéccite si dundinub li war a toll si junne xale yoo xam ne naka ñu ngi yeewoo ci biir bu Gambie bi te seen projet bi naka ñu ngi ko fas yéene continuer ba xaasub naana gi ñu ne dinañ continuer di lëkkaloo ak seen àndandoo yi pour continuer naka di doole li nga xam ne naka mooy wàllu dund gi surtout ma naka bu ñëwee ci dund tuutànk yi ak it jigéen ñi mbokk yi xibaar yi lañ leen fi amalal ci bëccëgub tey bi yaatal yi ngeen di doon ànd ak Xadijatu Koli di leen jaajëfal ci ànd bi di ñaan yàlla mu mel ñu ñeentoo jàmm jërë ngeen jëf ci topp bi wasalaam